ahousubillah min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan seen sit bi ñuy wax ak actu ñuy ànd ak yéen seen émission bi ñuy wax taxaw seetlu ginnaaw nuyu xalifa général de Mouride ñaan mu yàgg fi lool te wér di siyaare bu baax a baax alhaaji abdul fatah mbàkke ibnu cheikh amadou fadal di ñaanal bu baax a baax sëriñ daam atta mbàkke xalifa cheikh ibrahima di ñaan mu yàgg fi lool te wér mbokk yi tey neen ko baaxoo defee ñu dellusiwaat ci jataay bi tey ji ñu bëgg a waxtaanee li nga xam ne moo di actualité boo xam ne xew na mu di wàllu saaga saaga yi nga xam ne nag day am ñu war cee taxaw seetlu ci Sénégal lan moo ko sabab ndax sunu mag ñu fi nekkoon de du ñoom ñoo ko fi bàyyi du ñoo ko fi jëmbat sunu mag ñu baax ñi fekkoon nan fi jamono lëndëm fekkoon jamono nekkoon loo xamante ni euh, leerut woon ay ceddo nekkoon na fi ay buur nekkoon fi waaye sunu mag ñu baax ñi biñ dikkee ñoom danoo fexe xeex loolu lépp mu jóge fi ngir ñu jëmbat fi lu baax loolee nag dafa mel ni danoo delluwaat ba jamono dafa mel ni dafa retourné waat la bonoon araamoon nit ku yiw di ko seexlu nit ku baax di ko jombulu dafa mel ni léegi nag nit ñépp ko maase di ko defandoo daa mel ni loolu nag danoo xamut saaga yooyu fan la jóge saaga yi nag bu nu wëndeelee sunu xel dellu siwaat dañuy wax ne rek ci kër yi la jóge ñun ñoo ko sos ndax li ñuy wax ay baat yu leer la yoo xamante ni baat yu nu xam la bu njëkk sunu mag ñi wax baat boo xamante ni dafa jëm ci saaga wala ñàkk teggin sax xalaatuñ ko woon nu nekk lan ko daan léeboo ak di ko kàll ak di ko làkk boo masaan a def dara ban war laa dóor mu di xale da ngay dégg naa dinaa tànnal tàllal sa nunara gi sa nunara gi wala bu fekkee da wax loo xam ne du dëgg sax duñ la wax ne la li nga wax du dëgg dañ lay wax ne la kasabta kasabta ngir baatu araab da xam na ne moo gën a woyof ndax déggunu làkk bu baax buñ la masaana bëgg dóor sax da nga dégg na uh, ma la jàppoon wala nangam nga xam ne baat yëpp waaye làmmañ wi du génne mukk kàddu gu ñaaw loolu moo doonoon seen aada ñu dem ba léegi sunu xale yu ndaw yi nga xam ne danoo toll ci ñaari at ñetti at di jàng wax léegi saaga la ñuy jàng wax saaga saaga yi fan lañ ko jàng ci biir kër gi benn ñu dégge ko ci seen yaay wala ñu dégg ko seen baay wala ñu dégge ko seeni mag yi nga xam ne ñoo leen jiitu ndax xale bi foofu rek lay dund foofu rek lay dund te dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne nit ki su juddoo euh, ay mbokkam ñoo koy def majjoosi wala ñoo koy def yowoot wala ñoo koy def nasaraan ndax ñoom ñoo koy dafa mel ne ab ban ci ñoom bu ko defee nag xale bi foofu lay ci environnement boobu lay dund xam ci lay gimmee ngir xam saaga di saaga yaayam yaayam bég muy saaga papaam papaam di kiin te fekk na ci kër gi la ko déggee muy saaga ñoom duñ ko garaawal léegi nag xale bi noonu lay def ba ku mu gis day jàpp ne saaga moo jële ci yow gan gu ñëw ci kër gi sax dafa lay saaga ndax jàpp ne saaga moo war ndax loolu rek lay jàng wax loolu rek la xam moom xamul dara damay nangam taan damay dagg damay nàngam bu ko defee yaayam ree ne moom di lii la xewal man sax daf may saaga baayam bërki démb li mu ko doon wax nangam man wax jooju xawma fu mu ko jàng te fekk na ci kër gi la ko xale bi jàng loolu nag moo màgg ba génn ci biti saaga yi léegi dem ba nekk mag ba bi jaaw ba xam ne kenn mënatu koo jële ci réew mi dafa mel ni réew mi danoo euh, wiisoo wala boog nit ñi danoo wiise loo xamante ni lu ñaaw daal moo fi may alal léegi rey nit kar nit nangu alalam saaga nit xas nit as gor yooyu ñooy may xaalis ba am na ñu ko métier <coughs> ñu ko métier woo ñoo xam loolu lan métier saaga nit xas nit rey nit def nangam yu ñaaw yi daal moo mën a indi alal ku bëgg lu alal léegi ci yu ñaaw yi nga koy amee mooy saaga xaste rey dóor nangam ñenn ñi jël la di la fay ngir nga leen di defal lool nga leen defal loolu nga gis nit koo xamante ni fa muy toog di fa presse di fa fréquenté yelloowu fa sax du millième waaye lu ko fa yóbbu mooy gor gu nu bëgg xas ñu fay leen ñu xasal leen gor gu nu bëgg a saaga saaga leen ku nu bëgg rey rey la te da ngay gis nit koo xamante nii da ngay laaj ne waa kii lan lay wuti ci kërug diine gi wala lan lay wuti ci kërug aada gi wala lan lay wuti ci nit ñi nit ñu baax ñu am responsabilité ak moom ni dayam tuute fekk na ñoo ko jël teg ko ci seen wet kun bëgg a saaga saaga la kun bëgg a xas-xas la loola boo xoolee ci këri diine yi am na ci boo xoolee ci kii saaga yi nag day soq koo ci nit aada yi mooy politiciens yi ak sunu këri diine yi sax gone yu ndaw yi fi nekk da gis gone gu ndaw goo xamante ni mën naa yekk waajuram wala ko tolloog waajuram lu nekk mën na koo wax te du ngeen bu ngeen duggee ci internet bi dangeen gis ne saaga yooyu amatul kenn ku mu jomb amatul fenn fu mu dem nit ki nga xam ne nag bu nu seetloof ñun saaga yi ñu ko fi indi mooy politiciens yi di jóge ci kër diine yi bu nu seetloo ci jamono yële passé da ngay yëg ne politiciens yi bu nekkee ci télé yi débat yi nii def la ngay dégg njëkk a dégg kooku waxu dëgg day nangam day kàcc day fen du nangam ñu jékki dem ba ci loolu ñu mujj àgg ci saaga ndey bu nit waxee mu ne ko nangam taan ndeyam ñu dem ba ci sunu assemblée bi nga xam ne amuñu lu dul moom fa la ñuy nose suñuy xalaat fa la ñuy yokke suñu koom-koom fa la ñuy defare suñu njàng ñu fay saagaante di fa dóorante di fa nangam ba nit ñi di ko def nga nekk di politique toog ak nit ci télé ngeen di wax ay argument pour ku mën a yor réew mi yan yan xalaat lañ koy yore yan yan idée lañ koy yore nga taxaw di wax kenn ki jikki-jikki saaga la ne la nangam saaga nag ñi nu wax ne ñoo ko ëpp ñu koy def mooy ñu amut argument ñi amut argument mooy ñu amut xam-xam ñoo ëpp saaga ñoo ëpp ay saaga ndax parce que bu ñu demee ba amatun argument lan koy def mooy saaga ak wogasu ak bëgg dóor fii gis ngeen fi koo xam ci assemblée bi tey responsable bu rëy la fa bu mag a mag yor na aw xeer fii mattu man photo bi laa gis waaye image ba sax nee na ñi digg image nee na saagay ndey la ko boole lool ci en tant koo xam ne responsabilité la nga gis ñoo xamante ni saaga la ñuy def seen métier xoolal fii am na fi ku nekkoon bitim réew koo xam bu yàgg la da daan saaga di saaga di saaga ba mujj bi nu demee ba régime bi changé beneen régime nekk fii dañ koo jël indi ko bi mu dikkee ab ministre lañ ko def sax ci biir réew mi ñëpp xamandoo ko du jar tudd tut waaye ñëpp xam nañu gis keneen ku ko feelu koo xam ca bitim réew la nekkoon moom di saaga di saaga saaga yu metti yoo xamante ni donte saaga kenn faru ci moom it ñu jëlee ko foofu indi ko yóbbu ko ci kaso bi ndax ñaar ñi bokk nan ñoo bokkoon benn métier ndax bokk nan fu ñu leen placé déedéet kee saaga wa daf koo arrangé woon mu koy yeyeel di bëgg ku ko saagaal ak ku ko waxal lu bon bi mu demee ba yàlla dogal nag nattu bi dellu si moo tax saaga képp da ko war a ñaawlu ndax ku ci nekk am nga ndey joo xam ne ak baay boo xamante ni moo la gënal kudut moom bu ñuy saaga ndey jàmbur jàppal na yow war ngaa metti ne bu doon ëgsi sa ndey dina metti wala ñuy saaga bàyyi jàmbur dana metti mooy li wax ci euh, journaliste ñu ne journaliste li mu war a def kiyam référence ak li mu war a def balaa bind tiitar wala mu wax fi mu bëgg bind ab paas nar caa wax lu rafetut wala mu nar caa wax dara na xool bala caa dugal wenn tur na ca dugal turu baayam wala turu yaayam wala turu sëram wala grand frère bu fekkee ne jekk na ci rek mën na koo bindal kooka wala mu wax ko su fekkee ne turu yaayam rafetu fa turu baayam jëkk fa bu mu fa bindal nit yaayam wala baayam yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ku dikkoon ci moom ne ko man ka dama bëgg loolu ñuy wax mooy ci jigéen ñi di jaxasook ñoom daal di def di njaaloo yonent bi ne ko bëgg nga ku ko def sa ndey mu ne déedéet mu ne bëgg nga ko def sa sa tante mu ne déedéet mu ne bëgg nga koo def sa sœur mu ne ko déedéet mu ne ko nit ñi tamit ku ci nekk am nga yaay am nga tante am nga sœur bëggunu ko saaga yi noonu la dugge ci réew mi di dem ba màgg ñu mujj gis koo xamante bu nu seetloo ci woykat yi ñi nga xam ne xawma rapport la ñu def rap la xawma ñu seen woy yi dangay daan gis ñu ciy dugal saaga di ko ci def mu doon lu ñàkk teggin kenn waxu ci nit ñi dañuy bàyyi aw saaga di ko yar ba saaga wi doon xale bu ndaw doon ci raama ci kër gi lay raame jikki-jikki am fi ñetti at génn am ñeenti at génn doon xale bu góor wala mu doon xale bu jigéen mujj doon ab jeeg wala mu doon ab paa noonu la saaga wi def ba fi ñu toll àgg Sénégal saaga yi yëpp dafa maase bi jaaw àgg nañ ci dayob saaga ndax bu fekkee diw sàngam mën naa taxaw ne man am naa sant nangam temps ba noppi boole ko ay saaga moo doon kiyam yow ñi ngay saaga ñëpp am na ci moom bu fekkoon ne dañ laa tooñ sax saaga yellut waxantuma la ak tooñunu la saaga ci lislaam bu dee ab sëy la nga saaga jigéen te sëy ba mën naa tas mën naa tas ci saaga yooyu kon saaga jékkul fenn léegi ñu dem ba ci Sénégal kilifa diine yi gën a nawloo yiy dund ak yi du dund ñu ngi leen di saaga ci internet bi amul genn kilifa goo mën a tudd ci Sénégal te saagay ndey wala saaga fekk ko fa mu nekk mu faatu mu faatuwut suñ kilifa yi dund ñu ngi saaga guddi ak bëccëg ci internet bi te pourtant loolu état bi moo ci njëkk a am responsabilité bu rëy ndax ku saaga ku nekk am na xereñ topp la ak nangam ndax kenn du ne ñiy saaga xamuñu leen ñiy saaga xam ne leen ñu ngi ci internet bi ba nu bëggee jël diw sàngam indi ko fii ngir tëj ko dañ koo jël kon ku nu saaga sa kilifa ñoom ñoo la war a protéger ñoo la war a responsabilité wala déet loola li muy jur mooy dañuy dem ba nit ñi di fajal seen bopp état nag bu demee ba ab peuple jóg di fajal boppam bu boobaa metti na te saaga ndey du ñëpp ñoo ko mën a protéger am na ñoo xamante ni nag ñoom mën nañ ko ndax fii dégg nga benn waaye nee na man luñ ma mën a wax luñ ma mën a saaga luñ ma mën a baal naa la waaye bu kenn laal diw sàngam te man jàpp naa ne nit ku nekk xanaa sa waajur moo la war a gënal diw sàngam ak ku man di doon say waajur waaye bu demee ba woyofal saaga ne man sama intérêt kooku kon xam nga ne intérêt boppam wala intérêt diw sàngam lay kii waaye du intérêt boppam lay kii ndax intérêt bopp mi ngi tàmbalee ci say waajur ak nàngam bu ko defee saaga yi doon na loo xam bu yàggul rek gis nañ fii benn jigéen boo xam daa xëy xëy rek di saaga ne wolof yépp nàngam taan wolof yépp yépp kooku nu mu mujjee bi nu demee ba seetlu ko ba nàngam danoo mujj ne neen danoo mujj sax wutal ko paas génne ko réew mi ngir mu mën a demaat am liberté nit tooxaw protéger ko <coughs> te ñu ko doon protéger ñëpp xamandoo nañ leen loolu saaga du yëfi nit ku yiw du yëfi nit ku yiw nit koo xamante nii nag yaa ngi koy def na nga xam ne wala yaa ngi fexe di wut ay gor yi ñu leen di xas ak di leen saaga na nga xam ne yow moomu koy def na nga yëg ne saaga yële ñuy saaga niw sàngam da ngaa war na jël saaga ba moomale ko sa bopp ndax xam ne kan koy def ndayam nday ku nekk ko am bàyyi ku nekk ko am bu fekkee ne loolu ngay liggéey ak loolu nga jàpp ne moom ngay wut gor yi ñu leen di xas di leen wax lu ñaaw bala ngaa dee yàlla dana xawwi sa sutura saaga yooyu dana wàññeeku ñëw ci yow moo tax ñuy wax ne yéene néeg la borom a ci fanaan loo yéene néeg seetal lu rafet la wala lu baax yàgg-yàgg dina mas a ñëw sa kër daanu fa wala mu fanaan sa néeg wala mu yendu si kon nag nit ki lu nekk dafa war a seet la nga xam ne moo yàlla ci moom bu doon mooma du nangu ko ko dem na ba fi mu dafa mel ni E, e, kenn mënatut a xëy te déggoo ko te fa nga ko foogewut sax lay jóge fa nga ko foogewut fa lay jóge ndax nit ki bu fekkee yaa yar ab xaj ci sa kër yow xaj nga ndax am na ko baax koo xamante nii ban ko waxee ne ko dëkk bu sell bu toll nii nga fiy dugal ay xaj mun a xaj seen moroomi xaj rek lañ fiy seet si waaye ñiy saagante daanaka ñoom loolu rek lañ leen mën a méngaleen kon mbokk yi nanu fexe ba nit ñëpp ñu xam ne loolu du yoon te jaaduwul nit koo xamante ni yaa ngi nekk ci wàll woowu di ko yabantal wala di ko di ko rafetal wala déet tamit képp koo xam ne toog nga di ci ree wala nga ciy kontaan wala nga ciy bëgg na nga xam ne yàgg yàgg bu la yàlla dimbalee mën naa am saaga wi ñëw ci yow ndax fi mu toll Sénégal gi amul kenn ku fi gën a rëy suñu kilifa diine yi dugal ci internet bi waxtu wu nekk amatul kenn kenn koo xamante ni màgg nga fii ci Sénégal ba saaga fekkula fa nga nekk amul amul ku nekk da ngaa war a wormaal sa kilifa kilifa jàmbur danga ko war a xel kenn du xeebal nit kilifaam ku ci nekk da war a wormaal sa kilifa yonante bi sunu borom bi muy wax euh, ne buleen saaga ñi nga xam ne du nu ay woy gëm yàlla bu leen saaga seen yàlla yi ndax bu ngeen saaga seen yàlla yi ñu saaga ma nit ku ku saaga diw sàngam rek yaa saagalu sa yaay ku saaga diw sàngam wala sa baay yaa saagalu ku saagaloon diw sàngam yi tamit yaa saagalu sa waajur kon te nit ki waajur wi la indi war ma rek a war a am ci yow kon mbokk yi dañuy taxaw fii rek ndax li sëriñ Saaliwu daan wax ne kuy wax lu ñëpp xamandoo boo ci wax tuuti doy na waaye lu ñaaw la ci réew mi réew mi leblewun woon fii woon lii sunu mag ñu baax ñi leblewun fi woon lii suuxatun fi woon lii jëmbatun woon fii lii ku leen woowoon wax leen nii réew mi di doxe fi ñu toll ak nii ñuy toroxale gor yi ak nii ñuy tolofare ñu baax ñi ak ñu nàngam bi dana mujj jaale bu ñu demee ba xam ne ki nga xam ne day saaga wala muy rey wala muy nangam moo gën a tedd moo gën a am alal moo gën a am sutura bu boobaa xam na li lay wan ne la politiciens yi ak nangam ak jub amul ci ñu bare bari mooy ku ci nekk yaa ngi wut ay gardien yoo teg sa kër ak sécurité kuy xeexal réew mi daanaka jëru ko woon waaye li lay wuutal ne la saa booy jóg yaa ngi wut garde corps yaa ngi wut ku la protéger li ko waral mooy nekkoo ci lu jub bis bu nekk lu jub ngay ngay dox lu ñàkk jub ci lu jubi tamit ngay wax lu jubut ngay wax moo tax foo toll saw fite ngi për për jàpp nga ne koo xas ku nekk loo mën a def ngir am xaalis jaral na la ko waaye nag àdduna nag benn weeru koor la képp ku ci nekk te dog jotagul waragoo xalaat ne jubu dina wees te képp koo xamante ni yaa ngi tëdd nag di tuur ndox di colo looli na nga xam ne dara du la ci moy deret yi mbagg nag du mooy boroom ñu ngi sant ñëpp di gërëm di baalu àq ñëpp Euh, di dellu di sant ki nekkoon ci caméra bi di Thierno Faye ki nga xam ne mooy monté muy euh, Cheikh Gueye ki nga xam ne moo réalisé émission bi soxna Maguette Bousso asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu